أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala di jël tey ñetti aaya ci suratul baqara aaya 261 263 262 263 ñetti aaya yoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala mu ngi ñu ciy jàngal ñeenti mbir bu njëkk bi mooy fadlu nafaqa fi ljihaadi wa annaha afdalu nafaqat borom bi subhaanahu wa taala mu ngi jàngal ngëneel yi nekk ci dépassé ci yoonu yàlla génne sa alal joxe ko ci jihaad waaye mu ñuy xamal ne wa annaha afdalu nafaqat moo ëpp importance moo gën a baax ci li doomu aadama di joxe ñaari mbir bu teewee tabax jàkk ak jihaad ñuy woo nit ñi kaay leen ñu joxe walla gasteen walla tabax hôpital walla fan moo gën a yaay fu ñuy def mooy ci jihaad dërëm bu ëpp importance bu doomu aadama di génne di ko joxe ne yëg ne mu joxe ko ci jihaad moo ëpp doole jihaad sax lañu jiital ci nit ki ak bakkanam alalam lañ jiital ci bakkanam alal ji mooy war a jiitu ñaareel bi mooy fadlu sadaqat wa awaqibiha alhamida ay di ñëw sunu kanam mu ngi soññ di ñu fàttali ngëneel gi yàlla subhaanahu wa taala denc ci saraxe jullit buy saraxe nit kuy génne ci alalam di saraxe yan ngëneel la ko allahu subhaanahu wa taala dencal ci mujj gu rafet ga ci mujj ci ngërëm gu ñu sant ga ñetteel mooy xurmatul manni bi sadaqa araam na di génne sa alal di ko joxe ci yoonu yàlla boole ci bëgg dégg leen ma wala gis leen ma wala ngand ngand loog fëkk dënn naan gis nga loolu dafa xaraam complètement ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadis ne ñett nit duñu dugg aljanna salaasatun laa yadxuluuna aljanna yonent bi nee na ñetti nit ñi duñu jan duñu dugg aljanna wa zakara min baynihim almannaan yonent bi bi muy wax ñetti ñooñu bokk na ci ku mu wax mooy koo xam ne bu joxee alalam fokk mu bëgg nit ñi xam ne moo ko joxe wala moo ko def kooku moom daanaka alal ji muy joxe amu ci benn tiyaaba ndax yàlla taxul ñeenteel mooy ar raddul jamil mooy delloo bu rafet dinañ ko jàng ci aaye yi dinañ ko ci gis delloo bu rafet alal faqiir yi ci ku ñàkk ku ñàkk ku ñëw di tawat di jàmbat ay aajoom ngalawaay bu ngeen amee dimbali leen ko waaye bu ngeen amul it su ngeen di wax ak moom wax ak leen moom wax ju rafet walla bu ngeen koy joxit sax am ngeen di ko jox waaye jox leen ko ko ci anam bu rafet yooyu yëpp dañ koy jàng ci ay yi nekk sunu kanam is isa lam yujat maa yutaahu bu fekkee amuñu lu nu ko jox nan wax ak moom wax bu rafet wa kazalika al afu inda suali al qawli minhu dañ ko jéggal tamit li mu taxaw léeg-léeg nga gis ndeysaan benn waaye bu ñëw taxaw ci digg jàkka rek asalaamaaleykum rek benn waaye ne ko waay waay noppil waay gis nga wala génn ci biti dama ci buntu ba nan yàlla nañ moytu de ba moytu yàlla da lay nattu de nga mel ni moom te ngaa sant yàlla bi la yàlla nattul nga mel ni moom kon bu ñu ko jànni bu ñu ko toroxal bu nu amee lu ñu koy jox nañ ko jox suñ ko amul nañ ko wax ju rafet wala bu ñu koy jox tamit nañ ko ko jox ci joxin bu rafet yooyu yëpp dañ koy jàng incha allah ci aaya yi ndekk suñu kanam ñëw na ci xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na alkalimatu tayiba sadaq wax ju neex wax ju teey sarax la wax sax ndeke nit dina ci saraxe mbokk jullit yi ñeenti mbir yi nekk sunu kanam moom la ñu fas yéene jël tey mu nekk dars ñu ñaan buur yàlla subhanahu wa taala mu may ñu ñu dund ko bu def ci ñun dégg ak topp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يدائف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يقول المولى جل جلاله mathalu misaal ndeysaan sifa yëru masalu misaal allazina ñi nga xam ne yunfiquuna ñooy joxe ñooy dépassé ñooñu di jënn ci seen alal di ci coppati di ci joxe borom bi a ngi leen di misaal ñooñu nan la nu mel al imaamu qurtubi rahimahullah mu ne aaye bi dafa wàcc ci usmaan ibnu affan ak abdurahman ibnu awf mu ne xam ngeen ne usmaan radiallahu anhu wa ardaahu moom jahaza jaysul usra moom moo waajaloon armée boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waajaloon di xare ji ca tabuuk armée boobu nga xam ne jafe-jafe yi ci ne kenn xamul nu mu toll arme équipement yaag fas yaag la ñuy lekk ak la ñuy naan ak lépp Ousmane a ko gàddu woon ci loosam ak Abdourahman ibnu Awf moom mi nga xam ne indi woon na genn wàllu alalam lépp daal di koy joxe yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ne ko baraka allahu laka fii ma amsakta wa fii ma anfaqta Ousmane moom yonent bi da koo xool ba caag ne ko Ousmane mu ne ko ah mu ne ko loo defati yàlla faalewu ko Ousmane loo defati yàlla dootu ko xool yàlla faaleetu tey Ousmane bu meloon ne nun day bàyyi julli ku tol na yonent bi xool nit ne ko yow la neex nga def allahu akbar mbokk yi tey su ko benn xalif général waxoon benn taalibeem ne ko yow day wàcce naa la liggéey nu muy def ah ah te wallahi yonent bi alayhi salaatu salaam li mu wax Ousmane moo am Ousmane mu ne ko ah mu ne ko loo defati yàlla xoolu la yàlla faaleetul loo def ndax alal ji mu joxe ci yoonu yàlla kon kooku tey bu jamono yàqoo xoli jullit yi yàqu bañ koy askaneel ci yéeféer yi wala ñu naan safara la jëm xam ne kon jullit ñi yàqu nañu jullit ñi war nañ xoolaat seen bopp Ousmane ibn Affan koo xam ne denc na ñaari dooñu doomu yonent bi ñaari doomu yonent bi la Ousmane denc ba ñu tuddee ko borom ñaari leer yi ndax ñaari doomu yonent bi la denc ñu tuddee ko borom ñaari leer yi zunu rey nii te yonent bi alayhi salaam wax na ko ne su ma amoon keneen dolli la waaye nag ndeysaan ñi ñoo fi nekkoon jeex na allahu akbar koo xam ne wuutu na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jal bi borom bi subhaanahu wa taala nee na misaal sifatuhum ñii seen misaal al mustahsana misaal mi nga xam ne yàlla def koo rafetlu al ajiba misaal mi dafa yéeme ginnaaw bu ko yàlla rafetloo dafa yéeme ñii am ci seen alal di génne di ko joxe ci yoonu yàlla seen misaal lañu yàlla di wax mu ne masalu misaal alladina gaañi nga xam ne yunfiquuna dañuy dépassé lan amwaalahum seen alal fan lañ koy joxe mu ne fii sabilillah allahu akbar ci yoonu yàlla ñoom du ñu financé ay xumbal du ñu financé ay soirée du ñu financé ay cant du ñu financé ay football du ñu financé làmb du ñu financé du ñu financé du ñu financé ñoom lan la ñuy financé fi sabilillah yoonu yàlla tey nag ndeysaan am na ñoo xam ne seen alal yëpp fan lañ koy financé ci caaxaan dërëm munuñu ko ŋàdd ŋàbb yóbbu ko ci yoonu yàlla aay bi daf may fàttali benn waaye boo xam ne gars yi dañuy def conférence indil ko lettre mu ne ah man sama xaas bi gars yi soxla nañ ko ndeke ak waroon naa ne daaraam di amul islam njëriñ daa leen di delloo lettre ngir bañ a joxe ci yoonu yàlla borom bi ne kullama yusilu ila mardatillah soo déggee fi sabilillah mooy lépp loo xam ne day eggloo jaamu yàlla yi ci ngërëmal yàlla alal ji waa ji da koy dugal ci loo xam ne lu neex yàlla subhanahu wa taala la loolu mooy fi sabilillah lépp loo xam ne soo ci defee sa alal nga am ci ngërëmal yàlla loolu defal min al imaani ci ngëm wa saalihil amaali ak jëf yu baax kon nanu xam ne ñii jël seen alal di ko dugal ci yoonu yàlla borom bi kontaan na ci ñoom yàlla sax bay misaal ci ñoom mu ne kamasali mi ngi mel ne habba pepp grain moom ngeen naan grain soo déggee ci olof ñu ne pepp mooy lépp loo xam ne buñ ko jiyee bu déggee ci nasaraan ñu ne la grain mooy lan mooy pepp habba moom la tukulóor yi naan ab bere ab bere mooy pepp benn grain yàlla mu ne mi ngi mel ne habba benn pepp anbatat boo xam ne jëmbat nañ ko mu sax mooy waaw moo xam ne ji nañ ko mu sax anbatat sax na nabata waaw waaw léegi dañ ko jëb dañ ko dugal ci suuf si mu meññi mooy ambatat sax na ba mu saxee lan la nekk sab'a sanabil juróom-ñaari mbool juróom-ñaari mbool xam ngeen mbool hmm? kan moo xam fi mbool misaal ñu ko waaw buñ jéedu ko ba mu fecc ba jóg ci kaw waaw loolu ñu naan gub bu dee bu dee mbokk mooy loolu nga gis ñu koy damm indi fi di ko jaay léegi nag grain boobu xabba boobu ba mu jógee ci suuf sax dafa génne juróom-ñaari mbool yooyu juróom-ñaari ah juróom-ñaari gub yooyu la génne ñaata la woon benn léegi génne na juróom-ñaar juróom-ñaar yooyu fii kulli sumb la ci bépp gopp mi atu xabba am na téeméeri pepp ñaata la woon ñaata nga am léegi allahu akbar benn doom la woon yàlla fay la 700 700 mooy ñaata coola juróom-ñaari téeméer la la yàlla fay ci ay grain léegi nag bu dee yow saaku nga yóbboon nag ñaata nga am saaku la woon ñaata nga am allah imagine leen kon yàlla nee na ñii joxe ci yoonu yàlla lii la ñuy am ñii joxe ci yoonu yàlla yàlla mu ne lii lan am hmm? moo tax ndeysaan ñun xamuñu Ousmane Ibn Affan dafa am atum xiif moo tax nit ñi xamuñu Ousmane Ousmane li mu def ci lislaam ma ne làmmiñ dina tuuti ci wax ko big dina dina dina mënu ko bind Ousmane bi ñu ne cëpp Médine li mu njëkk a def mooy régler problème mu jullit yi te mooy amuñu woon ndox benn yahut moo amoon teen di jaay ndox mi bu xëy di jaay pan 1000 francs jullit ñi xoolal 1000 francs koo xam ne yow bi ngay gàddaay yoroo dara kaala sax indaale woo ko Ousmane ñëw ne ko léegi doo ma jaay genn wàllu teen bi bi jullit ñi demee ba sonn Ousmane ñëw ci moom ne ko dama bëgg nga jaay mat genn wàllu teen bi mu ne ko loolu nu muy nekke mu ne ko danga may jaay tey ma jënd la suba yow nga nga nga nga moom mu ne ko waaw léegi indi temps Ousmane ngeen di jox Ousmane daal di ñëw ci jullit ñi naan ne man saa yu ma ayee na ngeen root ba taaj ngeen root ba root pot yi li ngeen soxlawul sax root leen ko bu jour Ousmane jotee rek gars yi ran root ba root kopp yi teg suba bu waa ji amee bu waa ji waree aye waa ji amul ku muy jaay ndax ñëpp am na ndox teen bi jaay mu ne Ousmane mii dama nax dama nax kii nax na ay fan kenn jëndul dara ah koo ne doo dem rek eh damay xaar ba suba Ousmane aye ba suba rek koo wax mu ne ba suba ba suba yàggul ba suba waa ji toog ay fan ndeysaan amul dépasse bu ne man Ousmane gaa ma jàll genn wàll bi ne la beneen genn wàll bi Ousmane ne ko ñaari waaw man loolu dafa cher ah dafa cher dafa cher dafa cher wàññi man loo yor foofu mu ne am indi Ousmane daa ne teen bi fii sabilillah amul dootul tëjati beneen bi nit ñi dañu xiif sonn ay gëléemam daal di jóge ci àll bi daal di ñëw jóge saam ñëw yépp ba fees dugub mboq ceeb lépp fees ku moom lii ku moom lii ku moom lii ñu ne Ousmane commerçant yi daw ran këram waaw sëñ bi njëgg mi la ñuy wax njëgg mi mu ne lu ngeen ci wax gars yi ne ko saaku yi loo koy jaayee ne ah loo koy jaay de waaw bismillah ñun ay commerçant la ñun ñoon commerçant wu dëkk bi pare nañ pour jënd ko mu ne waaw lu ngeen fay gars yi ne ko saak booy jaayee dërëm dañu ko jënd ñaar dërëm mu ne loolu gis naa ku leen ëppale gars yi ne ko ñaar dërëm ñetti dërëm mu ne gis naa ku leen ëppale ngeen da ngeen di caaxaan ñu ne ko ñetti dërëm ñeenti dërëm mu ne gis naa ku leen ëppale ñu ne ko ñeenti dërëm juróomi dërëm mu ne gis naa ku leen ëppale juróomi dërëm juróom benn mu ne gis naa ku leen ëppale juróom benn juróom ñaar mu ne gis naa ku leen ëppale juróom ñaar juróom ñett mu ne gis naa ku leen ëppale juróom ñett juróom ñeent mu ne gis naa ku leen ëppale ñu ne ko eh gis nga Ousmane bu ñu fontoo fii ñun dong ñoo fi commerçant kan moo ñu fëppale ana ko ñun nag foofu lañ mun a yem topp nañ la ci dërëm ba ci juróom-ñeent mu ne yàlla nee na bu ma ko joxee benn fay ma fukk man jaa bil xasanati waaye bu leen ma fontoo joxe naa ko fi sabilillah kër gu nekk dafa ñetti saaku dugg kooku xam ngeen ne mënuñu buuxanteeg moom bu daajal te terewul xoolal daawul ne la guddi jàngeen ñu ne Ousmane naafile na kaamilu yàlla bi benn rakk waxuma ñaari rakka de benn rakka ah allahu akbar allahu akbar mbokk yi Ousmane joxe ba yonante bi ne ko ya- loo xoolat yàlla faalewu la ba pare te terewul xoolal bu guddee du nelaw biñ koy rey lii preuve bi mooy alxuraan lañ ko rey boo demee boo bi archive bu mu yàqoogul woon boo demee turki ñi woon la kaamil bu mu doon jàngee ñu rendi ko deret ji tax ci page bi alxuraan bi buñ koy rey deret ji tax ci kaamil bi mu doon jàngee buñ koy rey mi ngi ak alxuraan xoolal xo- te lim def lépp kon Ousmane ibnu Affan mbokk yi gis ngeen yàlla subhanahu wa taala li mu wax mu ne borom baa ngi xabaar ne ñiy joxe seen alal ci yoonu yàlla mu ne ci joxe ci yoonu yàlla alal lañuy jiital ak bakkan loolu jullit bi di joxe ci yoonu yàlla pour jihaad ni ko yàlla di màggalee di ko fulandi di ko sàmm di ko barkeel dafa mel ne benn pepp boo jël dem ba ca digg àll ba ci jamono nawet nga daal di koy ji mu jeeb bi daa di sax juróom-ñaari juróom-ñaari góob walla mbool mbool bu nekk téeméeri pepp sax ci soo ko boolee mu nekk ñaata pepp juróom-ñaar téeméer xoola waa ji lan la joxe ñaar fukk wala junni la joxe dërëm bu nekk mu am ci ñaata kon dafa am benn mbokk boo xam ne xëy na am na ñu ko fi xam mu ngi tudd Bakary ngi dëkkoon Asalem Las Palmas xamoon nga ko avant église bi Bakar yi dafa tëdd guddi ay 4 heures du matin fekk avant muy tëdd mu ngi xuloog jabar ji dépasse 5000 la daan xëy joxe dépasse këram mu am 2000 francs xamul nu mu koy joxe dépasse jabar ji mais mu jox ko ko jabar ji ne ko lii du ma ko laal 2000 mu ne non da nga koy téye bu ma xëyee fajar ma daw dem liggéeykaay ba rek la fa dara ñëwaat jox la mottali ko moo jabar yi ñu jàppante jàppante bu mett metti ci 2000 francs yooyu mu tëdd guddi tëj nañ seen bunt am ku fëgg mu ubbi muy benn dëkkandoom mu ngi gàddu benn liir bu xëm xale bu tànk yeeg bopp bi lang mu ne lii la mu ne dafa crise mu bëggoon boo yoree foofu 2000 nga abal ma ko moo yóbbu ko bi daal mu ne jabar ji ana 2000 yi jabar ji ne ko yéen 2000 mu ne yi ma la joxoon pour dépasse mu ne ko mu ngi nii mu ne ko andi jox ko waa ji ndaw si waa ji génnagul sax ndaw si ne ko lu ñu añ suba xanaa mu ne ko dimbali ma yow gisoo kii di waaj a dee mu ne ko muy waaj a dee yow da nga am dara ne ko aw ma mu ne ko dinaa ko ne aw ma te 2000 nekk jël 2000 yi dal waa ji dem na ñu toog 30 minutes ñu fëgg buntu kër gi mu ubbi benn waay bu kosti mu ne ko fii mooy kër Bakary mu ne ko waaw ana mu ne ko maa ngi nii yow laa soxla woon ko ak toog mu ne ko dama war a ñibbi léegi Europe man maay doomu diw te mu entraîne hôpital mu ne waaw wax nga dëgg mu ne sama yaay nee na ma yow sonn nga ci sama papa trop ndax comme Casamance la nekk lañ jóge woon ñëw fii amuñu fi mbokk te sama yaay bi mu la xamee woola rek yow yaa ko toppatoo woon di indi añ di indi reer vraiment léegi dama ñëw fii rek sama yaay moom ma fi tegtal pour ma jël sa numéro pour ñu jokkoo damay dem daal di koy nuyu am lu mu bàyyi ci loxo bi waaye daal di génn ba ci buntu kër gi dem mu daal di tëj buntu kër gi ñëw boobu kay jabar ji moom bi waa ji fëggee première mu ne ko jógal jógal jógal wuyu da ngaa mën a jóg rek jógal jógal jógal ba mu jóg recevoir waa ji saal bi boobu jabar ji xamul léegi kii kii ku mujj kii lan la lan la da koy bàyyi ndeysaan mu daal di toog mu ni nii mu gis cinquante mille mu ñëw fëgg jabar ji indi ko ba ci saal bi daal di toog mu ne ko ñaata laa joxe woon mu ne ko deux mille mu ne ko xoolal cinquante mille nan la ko yàlla fay ah gis nga lu ko yàlla wis yow ñu ne ko foo jëlee li mu ne ki ki ki mujje fëgg mu daal di koy nettali affaire bi mu ne ko gis nga nee naa li ma la moo tax ma naan la muurul nga bañ jabar ji daal di jël kaala gi muuru keroog la mu tàmbalee muuru nee naa la nga gëm yàlla ku bàyyi ak sa bopp yàlla yàlla rek la ko fa la jabar ji tàmbalee di muuru si nga man jaa bil xasanati falahu asaru am saaliha wallahi ku def lu baax yàlla fay la lu baax du réer du réer mukk kon yàlla daf ñuy misaal ñiy joxe seen alal ci yoonu yàlla ni leen yàlla di faye mooy lan benn bu ñuy joxe yàlla di leen ko fay juróom-ñaar téeméer yi la ko yàlla di fulanti benn pepp ngay joxe benn dërëm yàlla subhanahu wa taala fundalil la ko ba nga tiit masalu lazina yunfiquna amwaalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin miatu hab gis ngeen mu ne pour ngeen xam ne loolu dëgg la mu ne wallahu yàlla waxul keneen de yudaa'ifu yazidu yàlla mooy double mooy yokk hatta yakunu shay adaaf ma kaana yàlla mooy double di double di double benn waaye dégg naa day aj mu dégg ku naan fi sabilillah mu jox ko waa ji ne fi sabilillah mu jox ko mu waa ji ne fi sabilillah mu jox ko ki ma àndaloon ne ko doy na mu ne ko déggoo li muy wax bu dakkul de du dakk ci yoonu yàlla lay laaj ci yoonu yàlla lay joxe bu xanaa rek bu noppee rek ma arrêté ndeysaan ndeysaan allahu akbar yudaif yàlla mooy double yazid yàlla mooy yokk wa yuksir yàlla mooy bëril xatta yakunu shay adaafu ma kaana ba mbir mi yàlla yokk ba mu raw la mu nekkoon loolu mooy yudaaf yàlla mooy double liman yasha ku ko neex yàlla moo yor yi mbir yi ku ko neex mu jox la yenn saa yi nga gis koo xam ne liggéeyu waaye mi ngi féex nga gis kuy liggéey mu ngi sonn yàlla mooy joxe dañ laa sant nga kër kër yi rek mais yàlla mooy joxe yarzuqu man yasha dañ laa sant nag nga yëngatu waaye wërsëg bi dund bi yàlla moo ko yore ci loxo mu ne wallaahu yàlla waasiun yàlla ku yaatu la ba lépp la xejoo ñépp la xejoo du benn de ñaari ma wax ni du benn de yàlla waasiun ñépp la xejoo lépp la xejoo ñëpp ak lépp du benn de suñ nee ñëpp mooy képp ku am xel suñ nee lépp lu amul xel dugg na yàlla ñëpp ak lépp la xejoo ñëpp njabootam la ñëpp xoolal ñëpp la boole ci benn keppaaru suuf si asamaan si ñëpp di dund ñëpp bokk est-ce que ñun xejoo nañ lépp suñu kër est-ce que yow xejoo nga ñëpp yenn saa yi da ngay am ñaari gan sax ñu heure la ñuy tàmm ñëw fii quoi di changé kanam fekk gars yi kat ñëwuñu sax heure añ heure ataay rek lañ ñëw ah. di nga am rek yenn saa yi nga am ñaari gan yu jóge dëkk ba ñëw di faju ci sa rek semaine bële passé dañoo jékki-jékki rek suñu benn mbokk dafa xaw a feebar nag. day ñëw Dakar gars yi dajale jox ko mu dem ñëw gars yi jox ko mu dem semaine bee nag mu ñëw gars yi jox ko mu dem ndeke loolu gars yi joxoon ko daa dem buubi njabootam ne leen ñibbi naa Dakar mu dem indi jabar ji ak ñetti doom yi ñëw fa mu daan wàcc kooku dafa ne tëll seen ko rek ne ko ñii ñan la mu ne ko sama ñëwoon mu ne ko eh foo jëm mu ne ko ah dama ñibbi si nee naa waa Fuuta kay Fuuta doy na ñu ñëw naa Dakar waa ji ne ko ban oto moo la indi woon mu ne ko kaaru fuuta bi mu ngi fi taxaw mu ne ko demal nga am demal nga dagg biir aja aja waaye foo jëm dama laa mën a yor ak sa njaboot gis nga yàlla nag dafa xajoo ñëpp xajoo lépp allahu akbar lépp xool leen suuf si li ci nekk xool leen ñi ci nekk yàlla ñëpp la xajoo ak lépp moo tax waasi yàlla dafa yaatu allahu akbar waaye alim yàlla boroom xam-xam la ku xam la moo tax lépp lu mu def ci xam-xam la ko def yàlla rek moom xam-xam nag keneen amul lu tax yéen wa maa utitum min al ilmi illa qalilan wallahu yaalamu wa antum la taalamuun yàlla xam-xamu leen te sax yéen li ngeen xam mooy mbirum àdduna rek yaalamuuna ah lenn lenn ngeen xam zahiran min xayaati dunia waaye axira wa hum anil axirati hum gaafiluun doomu aadama yi tuuti lañ am ci xam-xam yàlla nag lépp la xam yaalamu xaainatal ayun yàlla bët yi sax su la xoolee xam na sa bët yi lu ñuy xool wa ma tux fi sudur xam na dënn yi lu ñu nëbb inna allaha alimun bi zaati sudur yàlla xam na li ci dënn yi yàlla yaalamu ma fi samawati wa ma fi l ard yàlla xam na maa yaruju minha maa yaliju minha wa ma yaxruj yàlla lépp la xam wa huwa maakum aynama kuntum fépp fu ngeen nekk yàlla nee na maa ngi ànd ak yéen laa taxfa alayhi shay'un fi l ardi wala fi sama yàlla ah wa maa tax tas yàlla amul amul amul yàlla lépp ba pare yàlla xoolal asamaan da ngay xam ne kii kii ko defar borom xam-xam la xoolal suuf da ngay xam ne kii ko defar borom xam-xam la sëñ bi bu benn waayu ñëwoon léegi fii nu toog mu daal di gas géej gi yaatal ko ba mu yaatu wala mu xoolal rek ki tabax pale daal di fay def benn piscine bu rafet daal di ciy def ay fleur yu rafet pale benn kër gu rafet mu def ci ay piscine def ci ay fleur sànni ci ay jën nit ñi siutët mais waa ji waa ji foor na ne waaw yàlla bi defar géej gi nag ah yàlla bi defar dex yi nag benn waaye day ñëw rek defar 19 étages nit ñi ñëw kay foor nañ waaw yàlla mi yóbbu étoile yi ci kaw nag moo ngi yóbbu yàlla gën a foor moo tax sunu borom subhanahu wa taala da ngay gis bu fekkee mbirum mbind la mbirum defar aaye buy jeex rek yàlla aaye bu mu ciy teg da ngay xam ne kii mooy mbind lan lay wax danaan man maay expert bu mag bi xool leen bi yàlla di wax doomu aadama ni ko yàlla bindee moo bind doomu aadama ci alaq summa jaala min baadi alaqatam mudga nga topp aaya yi muy dem ba mu jeex lu mu wax tabaarakallahu ahsan alxaaliqin ahsanal xaaliqin yàlla du morom yàlla lépp lu muy def aussi ci xam-xam la koy def parce que boroom xam-xam la bu ngeen bëggee xam loolu nu mu ne mu ne wa fii anfusikum afala tubsirun xool leen seen bopp jaru ngeen di wëri man lu ma def rek yàlla du kuy def kuy làmbatu lu mu def ci xam-xam la ko def parce que mooy boroom xam-xam bi nga bëgg a wëri mu ne bul sori xoolal sa bopp nopp fi mu nekk nopp lan moo tax nit di dégg da ngay gis tey nga def kuy jàng médecine benn waay boo xamante ne juróom-ñaari at nopp rek lay jàng nopp boo ko yóbbuloon bët mu ne ren non wax dëgg yàlla jànguma ko quoi il faut nga dem ci kii faj bët kii faj bët nu mu tudd oftal oftalmologue kii faj bëñ nu mu tudd dentiste kii faj nopp nu mu tudd kii faj bopp nu mu tudd kii ki yor der bi nu mu tudd dermatologue ki yor deret ji nu mu tudd ki yor yax yi nu mu tudd yax kese xoolal ñoo ñëpp ku nekk benn rek ngay jàng benn benn benn li ngay gis koo xam ne addunaa mi xam nga loolu jàng mooy we we moom we rek boo ko indilee bopp mu ne la non foo nga dem boo génnee nii à gauche nga jàdd ñooñu foofu lañ nekk nga dem foofu nga génn ñu ne non problème mu deret la il faut nga dem banque banque sanguine ñoo ñoo yor deret dama foofu allahu akbar al insaan zalika al maxluq al ajib benn waaye moo ci bind moo ci bind benn téere tudde ko noonu al insaan zalika al maxluq al ajib doomu aadama mbindeef mu doy maar moomu nga gis koo xam ne moom xam nga lu mu jàng siddit kese rein xoolal lii lépp moom yàlla moom subhanahu wa taala moo ko defar moom moom moom moo ko defar li waa ji dem di jàngi ñii di jàngi adduna bi yëpp toog ñii dem jàng li ñii dem jàng li yàlla moom moo ko defar bul dem sax bul dem fenn ñëwal rek ñëwal ci bopp bopp yàlla moo ci def ay ndox yu wuute ndox yi nekk ci nopp ndox mi nekk ci bët ndox mi nekk ci bakkan ndox mi nekk ci gémmiñ ndox yi nu róowuñ de te benn bu nekk foog fal force mu nekk léeg-léeg nga gis ndox mi nekk ci bakkan manqué waaye ñoo ne eh amoo foofu mentalatu waaye de chuu il faut ma nga jël di sol allahu akbar te xoolal benn bu ci nekk fi mu nekk foofu la war a nekk bët dafa am ndox est-ce que ndoxam ak ndoxu gémmiñ ñoo nuroo nuroo wuñ de ah est-ce que ndox waroon naa mën a manqué ci gémmiñ bu ci nekkoon du baax bu ci nekkul woon du baax kon doo lekk doo wax gisoo yenn saa yi mbooy mi ñëw sa gém sa tuñ yi tooy wow koŋ looy def nga koy tooyal fa nga loo ko tooyale gis nga beneen bi xoolal booy lekk machine yaa ngi roose lekk bi yii di yëy yii di roose mi ngi mel ne ci gaze ciment béton yeeg ciment beeg suuf si su machine bi di tourner gaa yaa ngi sotti ndox xoolal bakkan bi ba fa nekk yàlla subhanahu wa taala daf ko def ci ay buum yoo xam ne ay yoon yoo xamante ne soo xëccee ngelaw gi rek daf ciy tegu ngelaw li daal di rëttax daal di dugg ba ci sa poumon yi doo am benn problème mais gis nga bis bu ngelaw bis bu ndox mi fa nekk xawee am problème da ngay commencé sa nooy am problème nga suu tey affaire bi garaaw na gis nga loolu moo tax gars yi defar buntu magasin yu ngand yi buñ ko defaree ba pare pour bunt bi du am problème buñ koy yéegal ak buñ koy wàcce lu ñuy def ci el yi graisse graisse bi xam nga lu muy jëriñ pour wàcce bi yomb mooy ndox mi nekk ci bakkan pour noyyi bi yomb ndeysaan sunu borom nga gis loolu nit day toog ay at di ko jàng ay at te sunu borom moo ko def ba pare te yàlla lépp lu mu def ci doomu aadama kenn du ne non lii moom waru fi woon nekk xool leen acca kenn na wax boppam yéen ñi toog fii kenn ku nekk xoolal sa bopp nga xool lu warul woon nekk ci yow bismillah ah xanaa am na koo xam ne naan ma sama nopp yi de war waru moon am nopp naam ku ne man waru moon am tànk naam ku ne waru moon am bët naam ko ne man war mënoon am ay loxo mu amul woon ay loxo ci lay gën a rafet ndeysaan moo tax yàlla pour ñu wax mu wax ñu ne moom dafa am xam-xam waxuñu ñu dem fenn jàngi dama ñu ne wa fii anfusikum yenn saa yi sax mu xool doomu aadama fal yanzuril insaanu mimma xuliq moo yow doomu aadama xoolal ci lan laa la bind xuliqa min maa in daafiq maa ngi la bind ci ndox moo xam ne buy génn day génn ci force day génn ci force ci góor lay génne ci force lay génne lay génne doole fan lay génne yaxruju min bayni sulbi wa taraib ci ndigal góor lay génne ak déndi baati jigéen mu nekk ñaari ndox ndox moomu nee na yàlla nee na moom laa jël fa jaalnaahu fi qaraarin ma dugal ko ci benn place bu am sécurité bët du ko génne loxo du ko luqarti pikiir mënu koo gaaj génne fa jaalnaahu fi qaraarin ci saxwaay makiin ma denc ko fa ila qadrin maalum ndeysaan wala mu ne fa qaddarna fa ni'mal qadirun keroog ba mu jotee ba muy génn man yàlla ma dogal waaye la ma dogal a rafet ndox moomu génn naan wee am ay tànk am ay nopp rafet ba bëgg dee nga gis ñu koy fóon fa qaddarna fa ni'mal qadirun allahu akbar ndox kon yàlla subhanahu wa taala alim mbokk yi yàlla alim wallahu ala kulli shay'in wallahu alimun bi kulli shay yàlla xam lépp waaw yàlla mën lépp amul kenn ku xam lépp mën lépp amul fenn diw xam na lépp yenn saa nga dégg ñu ne diw salmaasi itala lépp la xam loolu du dëgg qul liman yad'u bil ilmi maarifatan arafta shay'an wa gaabat anka ashya koo dégg mu naan am naa xam-xam am naa xam-xam ne ko am na loo xam de waaye nag li nga xamula ëpp waaw li nga xamula ëpp laaj leen Moussa keroog bañ ko gars yi ne waaw banu Israël ku fi raw mu ne yaakaar naa ne man la de yàlla ne ko du yow de mu ne ah yàlla mu ne ko moom benn waay am na benn waay bu nekk fii ci wetu géej gi moo la raw fii rek mu nga maj ma bahrayni mu ne kon foog ma jàngi yàlla mu ne ko demal mu dem dajeeg waa ji waa ji ne ko ah man nag ku may jàngal doo ma laaj doo ma laaj de mu ne ko amul problème ñu ne tëll dugg ci géej gi waa ji bënn gaal gi mu ne ko da ngaa bëgg ñu lab mu ne ko waxoon naa leen ne mënuñu mënu ma la jàngal de kooku de bu ñëwoon Sénégal du jàngal kenn ah pourtant xel nangu ko de nga nekk ci gaal ñuy bënn gaal gi mu ne ko waxoon naa la ne mënumaa ànd ak yow mu ne ko ah baal ma dootuma ko defati ñu wàcc mu jël benn xale rendi ko mu ne ko yow nag yow nag mu ne ko yow waxoon naa la mënuñu ànd ba nuñ tàqali ko ñoom benn boroom xam-xam day joxe ci ñetti misaal yooyu waa ji def mu ne xudar ñetti yoon la ko Musaa tooñ mu ne ko nañ tàqali ko mu ne ñun nag ñaatoon la ñuy tooñ yàlla te yàlla waxuñu haza firaaqi bayni wa baynak ndeysaan allahu akbar Moussa ñetti yoon dong la tooñ xudar xudar mënu koo muñal na ko fii lay tàqali ko yow ñun ñaata yoon la ñuy tooñ yàlla te yàlla waxuñu dara ñun ci lañ dëkk te yàlla waxuñu eh waaw yàlla mu ne pare naa ci yéen ngeen tuubee sax ba non say xoolal ndeysaan sunu borom ixwaan yi yàlla mu ne allazina gaa yi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe amwaalahum seen alal fi sabilillahi ci yoonu yàlla su ma topp laa yutbiuuna du ñu toppal ma anfaqu ca la ñu joxe man nan ngistal yëg leen ma maa joxe maa indi tonne ciment maa indi fer maa indi béton maa indi maa indi maa joxe lii maa indi nag bi maa indi ceeb bi maa indi foog ñu wax ko ndax man li ma fi joxe kenn joxewu ko kuy saraxe ci yoonu yàlla doo doo ci toppal wax ngay joxe noppi képp koo xam ne dangay joxe sa alal ci yoonu yàlla ba pare di ci teg ay wax ak na nga yëg ne pënd ak poussière nga am amoo dara waaw moo tax jullit dafa war a sellal mu ne ñi nga xam ne dañuy joxe te duñ ci teg ca la ñu joxe man nan lan mooy man mooy zikru sadaqa saraxe ba pare di ko wax ngay wax na mu toll ndax bu dul woon du man ah bu doon du man mu dee de ñu ne ah mu ne ah gisu leen fa saaku ceeb bi waaj maa ko joxe perte nga perte nga ndeysaan benn borom xam xam ne da ngay gis benn jullit bu fanaanee naafila guddi xëy dimanche la woon mu xëy suba lundi woor ndeysaan bàyyi booru ngoon rek am ku mu dajeel wala mu toog ci jàkk ji rek xaw a gëmmentu daal ne nii rek waaye ne ko ah yow yaa ngi nelaw kat damaa fanaanee naafila biig waay te loo ci xamul sax damaa wooraat nii fii ma toog perte perte nga lépp ndeysaan lépp yàqu na yonent bi ne da ngay gis koo xam ne ndeysaan saaku ceeb la saraxe woon waaye mu koy tibb di ko nangu di ko nangu di ko nangu ba mu des benn dànk te saaku ceeb la joxe woon mais mu koy nangu nan la koy nangoo waaw mooy li nga lii am léegi rek day gis koo xam ne dafa joxe ba pare ki mu jox romb ko mën na ko gis mën na ko bañ a gis bañ ko nuyu eh yow góor gi xanaa gisoo ma yow daa wax ah xoolal rek ñii nii la ñuy def rek xoolal te biig biig rek biig laa ko wàccal saaku ceeb xoolal ndeysaan yaaxule nga yooyu nañ ko moytandiku am na benn waaye bu dëkk ci koñ ndeysaan dem ci borom bitig bi mu ne saa yu weer dee rek joxal ma paa bi saaku ceeb waaye bis bu xamee ne man la ma arrêté ko le 5 bu jot rek waa ji day waaye ba 2 9 heures rek mu ñëw fëgg paa bi bugg ma mu ne ko saaku ceeb baa ngi mu ne ku ma ko jox mu ne ko ah dafa ne woon bu ma waxee turam te léegi mën na fukki at gis naa waa joo xamante ne dañoo sàcc ba sangu jàkka ji mu bàyyi ba faj ba 4 heures du matin mu ñëw lalaat jàkk jëpp mboket te fajar jot mu julli si ñu naan waa kii kan la ku lal lii kenn xamu ko ndeysaan waa jooju yàlla nga ko jële mu génn àdduna mu julli di ñibbi bay ñibbi këram daal di daanu ci yoon daal di gaañu kon am na ñuy def ba léegi ci yoonu yàlla yàlla loolu la bëgg ci sarax yonent bi nee na sarax bi gën ci sarax yi mooy sarax bi nga xam ne ndey joor bi bi mu koy joxe càmmoñ bi xamul lan la ndey joor bi joxe borom bi subhanahu wa taala mu ne mu ne ñooñu lahum am nañ ajruhum seen fay inda rabbihim ci seen borom wala xawfun alayhim tiitaange amul ci ñoom wala hum yahzanuuna duñu jàq képp kuy saraxe képp kuy joxe sa alal ci yoonu yàlla bi nga koy joxe toppaloo ci wax toppaloo ci fëgg dënn toppaloo ci saleeru toppaloo ci nangam nangam borom bi nee na yow sa fay man yàlla maa ko yore te ëllëg bu leen yàlla di fay du ñu tiit du ñu jàq borom bi nee na ci ñi amul war a joxe xawlun wax maarufun ju ñu xam wa magfiratun ak njéggal xayrun moo gën min sadaqatin ci sarax yatba'uha boo xam ne borom dana ci teg azan ay lor waa ji ne fii sabilillah am waay ah tere ngeen nit ñi nalaw waay waay waay waay waay mar waay mun a jox ndànk jox nga ko mais amul njëriñ amul benn njëriñ kooku nga ñëwoon ne ko ah salaamaaleykum waaw mbokk mi aaroo beneen yoon nga jaar tax tey moom dañoo xaw a kii gis nga joxoo ko mais am nga tiyaaba fee da nga kaa jox ba pare am bàkkaar qawlun ma'ruf wax ju ñu xam wax ju neex yonent bi nee na alkalimatu tayiba wax ju neex wax ju ñu xam maaruuf wax ju baax njekk ah waaw xaaral ba beneen yoon waaye waa sang bi xaaral beneen yoon nga jaar waaye tey de moom xanaa nga xaw a naaje tuuti ndax tey de moom ah dañoo xaw a tollu diggante wax ju wax ju leer a ngoog qawlun maaruuf wa maghfira ak njéggal mooy lan jéggal waa ji sax ci lim la déranger ci lim la yee ci lim la baare ah qawlun maaruf kalaamun tayyib yuqaalu lisaail almuhtaaj nahwa allahu yarzuquna wala waa ji ne ngir yàlla yal nañu yàlla nag nga ne ko waaw yal nañu yàlla jàppale yal nañu yàlla jox waay waaye yal nañu yàlla jox jox ñu waay yal nañu yàlla wërsëgal wërsëgal la wa maghfiratun sitrun alal faqir nga nëbbal ki ñàkk comme romb na fépp ñëw sa kër nëbbal ko bul ko yuuxu bul ko bëmëx nëbbal ko bul ko arsale wa maghfiratun bi adami izhaari faqrihi bul bàyyi ba mu dem nga ne waaye ñii nii rek la ñuy def di wër di ñaan rek ay ñii dañu lakkale waaye ñii dañu lëjle loolu kenn du ko def jullit du ko def benn waaye ñëw ne di yalwaan reer ci kër mu ne ko ci xaj ci biti nga fokkale torop jamono soppi ay at am benn waay bu ñëwaat di yalwaan ci kër mu ne soxnaam waa ji ñu- kër gi ñu doon yalwaan borom kër gi ne soxnaam dama nga woo waa jooju mu ñëw ñu reer waa ji dugg mu ne ko tegal bool bi ñëw raxasu soxna si xool waa ji rek jooy jëkkër ji ne ko lala mu ne ko kii sama jëkkër la woon allahu akbar ha inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne ah waaw gis nga waa ji daal di sigi xool borom kër gi ko ne kaay reer mu ne ko yow day damaa duggoon sa benn sa kër benn bis di yalwaan nga da ma dàq la ndeke gis ngeen soxna si sëy naag ñaari ko góor yi ba ko waaji ba waaji ñàkkee soxna si dem yoonam yalwaankat ba yàlla dimbali ko mu am takk soxna si waa ji la ñëw di yalwaan tey gis ni wa tilkal ayaamu daawiluha bayna annaas yow tey ëllëg sa morom kon boo amee del dimbali waate booy dimbali waate boole ci sutura boole ci wax ju neex ndax su boobaa ngay am tiyaaba borom bi subhanahu wa taala nee na qawlun maarufun wax ju baax waxu njekk wa magfiratun ak sang sutura kii yalwaan xayrun moo gën min sadaqatin ci sarax boo xam ne yat ba uhaa danga ciy teg azan ay kurpeñ ak ay wax yu bon waaw bañ a jox nit ki te wax ko wax ju neex moo gën nga jox ko boole ko ci ay xas mu ne wallaahu yàlla ganiyun mooy aji oomal ji xalimun mooy ku lewet ki sayid xawaa rahimahullah nee na bu ngeen di jàng alquran bàyyi leen aaye yi fu muy jeexee yàlla ganiyun mooy aji oomal li mu yor du jeex mukk mukk ci àdduna xalimun yàlla mooy aji lewet ji xani xalim kon képp kuy xani xalim moo la war a moo nga ci war a teg ndax li nga yor danga ko war a génne xalim jox ko ñëpp moo tax yàlla xaniyun xalim mbokk yi incha allah fii la ñuy yem ba talaata ak jàmm ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu njëggal njumte yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. أين بلال